tanaazalul malaaikatu wa ruuxu fiha bi izni rabbihi min kulli amrin salaamun hiya wa tamat layl fajri isaa jaa nasrullahi wal fatxu wa raayta naasa yadxuluuna fi diinillaahi afwajan fasax bi bi xam bi rabbika wastafirhu innahu kana tawaaban ñu ngi ziyaara mbokki jurit yépp di jël ziyaara googu noonu di ko teg ci loxo kilifa jotaay gi muy Cheikh Alxasan Diouf mu wasaar ñu ko ci tund gi di ndaayaan di ko ñaanal gudd fan ak wér ba lépp loo xam ne naal na ko ci liggéeyu seex Moussa gii liggéeyu yàlla gii sunu borom sottil di siyaara sunu kilifa bopp Cheikh Alioune Diouf moom itam di ko ñaanal gudd fan ak wër fépp foo xam ne yëg la ci moom ngir leer ga tabbi fa yegg fa sunu borom def loolee noonu am di siyaara bu baax sunu bàyyi Cheikh Lamine Sène moom damay wax ne bu ñuy war endurance ci biir pays bi jëmm endurance moom la fu ne lañ koy gis du tànqam lu fen loolu nag doon loo xam ne lu jafe la ndax dinay dagg li ay saayaram yu bari ngir di teewee jotaay yu mel nii nga xam ne dañuy faral di wax ne bu ñu bindee doomu aadama rek moo tax alxuraan day wax ne wa ma xalaqtul jinni wal ins illaa bu duni sakkuma nit ak jinni lu dul pour ñu jaamu ma kon sang bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay gu mat sëkk dila ñaanal guddu fan ak wër na mel nga am ci pay yalla gi sunu borom sotil ko bu wër di siara ki nga xam moy buntu berbi, bi ki yalla dogal xam-xam bi dugg bim mu dugg biir ba suñu borom barkel ko yatal ko jaare ci jëmam gi di Cheikh Aliou Diouf Godnes jàmbaar la góor yàlla la Seydina Omar lii ñun bettuñu ndax ki leen yàlla booleel ku bëgg yàlla la bi muy dugg ci yàlla tout tànk la ci saayir maanaam mun naa wax ne ñoom foofu saayir xamuñu ko ndax ngay am ay quinze ans wala lu gën a wàcc loolu noonu taseeg Cheikh Moussa si se Ndiamé borom dar muy si Alioune Diouf mu na wax ne koku xamul len luddul yàlla dunam yeb le si la ilaha illa huwa ci yàlla lako def dañ koy sel bu bax mooy jëmm yi nga xam ne ñoom ñoo seede kilifa gi ñaaxar bokkoon ak moom nag wala bokk ak moom koñ li ma gën a jàpp ci ñoom mooy xam-xam bii amul fuñ ko duga dugalul jamono yi nga xamne ne Aliou añ na xam-xam bi ñaaxar bobu ñaaxar dafa reub moy li kilifa gi fi togon legi doon waxtane football soirée dansante matinée lamb ci xal yoyu nonu la sé Aliou dugg see ñaaxar bo déggee ñaaxar non la melone waaye bi mu dogee dugg see ñaaxar ñu doon ay tànk laal pays bi dañ doon dugg ci biir soirée dansant di wax yàlla biir soirée dansante di wax yàlla ba soirée bi day da ngay commencé dégg yàlla yàlla yàlla yàlla mu soppeeku ñii def nañ ko bu fekkee match football li waa ji di wax ni am na gis nga dañuy jékki-jékki ba ñuy gis ci touche yi maam ay groupuscule nit yoo xam ne ñuy ngi commencé di wax ne yàlla yàlla coow li jolli xeetu xew-xew boo mun a mu mun a am ci dëkk bi muy làmb noonu lañ doon missionné amoon énergie bu doy waar nag kon ki yàlla booleel ca ba muy doon tout tànk maam gisoo la laal pays bi te noonu la doxe ñaaxaar maa leen di seddal loolu bi ma ci gën a bi ma ci gën a frappé maa ngi koy wax ma ne eh, benn jour daf ma ne seen sendof xam nga li ma bëgg ma ne ko ah mu ne ma fas boo xam dama bëgg a wër àdduna wërngal këpp den wax yàlla loolu maanaam seen kilifa gi sunu mos na ma wax loolu ba xaal googu noonu jëmaal na ko ci dox ay mbadat ay paataar village yi nekk ci tund googu di wax yàlla ku bëgg yàlla la kon yàlla buy dogal ba feeñuwaayam ci pay maam gisoo nekk ndaayaan góor yàlla sunu mbégte la ñu fi fii doog ñëw amaana année yi la ko ya sunu borom dogal waaye ñu wax ne cak dox fii yéenay borom li ma gën a neex ci tur yi ñi laal pays bi mooy seen set man duma ma du ma du ma du raay samay kàddu de ay jëmm yu set ngeen ah, waaw waaw Saliou ñu la yàlla booleel ñu bëgg yàlla lañ ay jëmm yu set lañ gën a takka laxasaay yi gën a feeñal li Seex saa woote gis nga ki dem école saa iratan waajuram dugal ko école xam nga lu mu bëgg réussite ba mu am une bonne insertion dans la société waaye nag yow itam foog naa bi nga demee sàkku ji Cheikh Aliou la nga namoon mooy nga duy ba feesal ba mun duyalaate taw de wax ne un bon maître fait de bon maître ku jeex ci ku jeex di jeex waaye jeex ci ku jeexul itam doo jeex fen waaye leer nañu te biir nañu ñu képp ku jeex ci Seex aliw darajay la si laa ilaaha illaa huwa maanaam jeex nga ci dëkk ma képp ku jeex ci sa aliw mane jeex nga ci dëgg te jeex bi mu jeex ci sang bi nag ba doon ko ku jeex ci seen naa leen god nes itam jeex ci borom bi subhanahu wa taala silsila ngi noonu loolu ay kàddu seede la woon jëmee ko ci ki nga xam ne yàlla dafa dogal pep Cheikh Moussa bu duggee ndaayaan yaatu ci moom la jaare jàmbaari góor la borom jaasi gi kon nag na gën a yaatu na gën a yaatu na gën a taaru ndax lu ñu yor noob mbiru noobul la ma ne li ñu yor mbiru noobul la yàlla ku ko yor danga nga war a xam ne yaa yor ku kenn yorul dañuy faral di wax ne li tax ñu bind doomu aadama ku baax mooy xam yàlla li tax ñu bind doomu aadama mooy mu fexe mu xam kim mu doon question la goo xam ne dafay am solo saa suñu waxtu bi ne jàmbi bi di fexe maanaam di ko fàttaliku qui suis-je man maay kan man maay kan maanaam dafa nekk benn question goo xam ne nag gars yi dañuy faral di wax ne philosophie la waaye bi ñu yaay laajee yonent bi alayhi salaam lan mooy xam yàlla loolu la leen tontu yaa rasulallah ana lan mooy xam yàlla mu ne man xarafa nafsa oo faqat arafa rabba ku xam boppam ci dëgg dina xam borom bi subhanahu wa ta'ala ku xam boppam ci dëgg dina xam yàlla kon kii suis boo ko xamee rek noppaluku waaye boo ko xamul noppalu koogoo ndax ñu ngi koy waxtaane tey ma ne gur yàlla dinañ faral di wax ne képp koo xam ne xamoo yàlla boo dayee dugg safara kaddu gu diis la waaye kaddu gu mot a setantal la loolu lu mu ku xamul yàlla boo dayee dugg safara ma ne kaddu googu noonu kàddu gu diis la waaye kàddu gu mat a setantal la ndax saa borom bu tedd gi dafa wax ne képp gu dee ci gumba ci gumba ngay ngay dekki te jàpp ci dee ci loolu lay dekkee Seydina Omar kaddu googu kaddu gu kaddu gu mot a setantal la gi rek dina benn xam ne moom ngay deewaale loolay safara ku baax lëndëm googu noonu cëru safara la sama mbokk saayir gi nga xam ne mooy déglu nag loolu day xaw a dis ci moom kon loolu an moo ko moo ci mën a dimbale jàmm leneen rek la nga fexe nga xam sa xam ki nga doon fan laa baawoo fan laa nekk fu lu mot a lijjante la ñetti laaj yooyu noonu lu mat a lijjante la fu ma jóge nan laa fa nekke woon lan moo tax ma wàcc fii ma nekk nii te leer na ma te biir na ma ne itam duma sax ci daaru duniyaa gi bés a ngi ci yi sama jëmm ji ak sama waa bu ñu takkaloo ko fan laay jëm loolu nag laa wax ne fu ñuy jëm noonu ñu koy wooyee xaybu lépp ci maasu jamono dañ cay réer mooy ndax fu ñuy jëm war nañ ko xam lu jiitu suñu jëmm ji ak seen ruubi war na mun a nekk war a waru mun a nekk alaaxira lu ñu war a mën a xam la fekk ñuy dund suñu jëmm ji wala dañuy dee ba doog ba pare doog a xam alaaxira buñ ne alaaxira lu doon àdduna ak alaaxira lan mooy alaaxira mooy yàlla yi mooy safara mooy arjana mooy bés pencu mooy sukuraat waaye ndax loolu dañ koy xam mun nañ mun nañ àgg ci maqaama yooyu lu jiitu ñu ñu jóge ci jëmm ji ma ne neleen ne ma xamaleen alaaxira lu jiitu di jóge seen jëmm ji loola la Seex Musaa woote daf lay woon alaaxira fekk nga nekk daaruy duniyaa loolu nag doon loo xam ne ñu bëri dañ koy dingaat damay ubbi bunt yi rek li may wax Cheikh bu ñëwee dina ko leeral ndax alaaxira maanaam war nañ ko xam mooy ndax nit war nañ nit war na mën a nekk ci àdduna ci daaru duniyaa di gis arjana wala nit nit war na nekk daaru duniyaa di gis yàlla nit war na mën a nekk daaru duniyaa di gis malaaka yi ndax nit war na mën a nekk daaru duniya di xam dara ci bés pencu ndax nit war na mën a nekk daaru duniya di taseeg yonent yi ndax nit war na mën a nekk ci daaru duniya ba yegg ci fi yonent yi yeggoon ba maanaam seen téere yu sell yooyu mu mën cee liir ndax loolu lu mun a nekk la wala lu munul nekk waa Kër Seex si Cissé ñame borom daaro dañoo ne loolu noonu lu mun a nekk la nit mun nga nekk daaru duniyaa di gis sa borom bu tedd bi subhaanahu wa taala ndax loolu dañ ko sos ndax loolu téere yu njëkk yi waxoon nañ ko wala waxuñ ko bo demé ci alxuraan sa borom bu ter mi ngi wax ne faqlam annahu la ilaha illa allah yàlla bu ne faqlam rek moy xamal mu ne loy xam mu ne la ilaha illa allah mu ne bo xame baatub la ilaha illa allah mu ne jégalu ci sa bakkar mu ne dina la ko dina la ko jéggal lolou dafa war jur bu jigen waye lolou dafa war jur bu jigéen jur bu gor faxlam annahu la ilaha illallah wastarfi li zanbika xaman batu la ilaha illallah wa la ilaha illallah lu mu tekki mooy dara nekk fi lu dul yàlla kon ñu ngi lay wax ne xamal ne ndekete dara nekk fi lu dul yàlla baat la boo xam ne da ngay da dem ci xam yi nga ne ko dara nekk fi lu dul yàlla bu nangu ko de ba pare da ngay wax gis yàlla mu ne la lu doy la lu ñuy bàyyi xel sax ci lu ñuy wax la si laa ilaaha illaa huwa gis nga am bi boo ko àkkisee ne ko dara nekk fi lu dul yàlla moo lay njëkk ne waaw loolu dëgg la kay dara nekk fu dul yàlla yàlla kese fi nekk waaw nga ne ko yàlla dañ koy gis mu ne déedéet loolu mënul nekk xool ma wax nii lii boo defoon sondage nga dem ci nga ne leen dara nekk fi yàlla baat googu noonu dañ koy nangu ne dara nekk fi yàlla dala dëgg la kay nekk fi waaye boo yàlla dañ koy gis mu ne loolu mënul nekk waaw yàlla kese bu fi nekkee kay kon war nga ko mun a gis te baatub laa ilaha illallah tekkiwul dara lu dul dara nekk fu lu dul yàlla laa dàq na illaa xa saxal na allaahu moom yàlla moom kese fi nekk ne ko fekk dara kon xam-xam googu noonu nag nga war a xam ba xam yàlla yàlla fi nekk moom kese loolu mooy xam-xamu xam yàlla waaye nit ki xam ne moo jëmm ji sànq maa ngi wax na ne mu baax ci yàlla koo wax na foo jóge mun ne ci yàlla te du ci am benn benn remor benn sàkka foo jóge mun ne ci yàlla kon ci yalla googu ñu jóge nag wàcc ci benn jëmm muy jëmm ji nga xam ne mooy jëmmu doomu adama dafa melni fofu lañuy faté suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu motax nga dégg tubaab bi di wax ne chaque personne va traverser le fleuve de de l'oubli mooy jëmm ji diggu bi dugg ci diggu bi muy dugg ci jëmm ji dina ko woon ci yàlla boo demee gars dañ koy wax le de la caverne ala kule al par force mu ko loolu tax nga dégg alxuraan di koy al al insaanatu aji fàttekat gi waaye kenn nag da gi ma lay jox benn jëmm yàlla koo xam ne Seydina Omar dafa jóge fii ndaayaan def un à l'extérieur il a parti gis nga bu euh à hauteur de Popenguine di defere di ñëw Ndayane les maisons ont changé c'est des étages maintenant yay nek décor gi nga xamné mom la xamone ak décor gi nga xamné mom lay gis nii dafay wute mun na ko yóbbee sax tali yi ñu soppi ko mën na ko ba moom fim dékon du ko xam

waaw kër gi kan moo ko moom mu ne diw gis nga booy bi nga xam ne moom dafa juddoo ci waxtu googu noonu dina mun a téye loxo gi maam di dox ak moom jiitu ko moom mu topp am ba ñuy yegg seen biir kër te bu yégsee moom dina xamee ah boo moytul dina fa am waaye mbégte dina fa am akolaat dina fa am pouvoir dina fa am loolu mooy misalu, kii fàtte yàlla góor loolu cheikh lamine ñu ko doon yaatal moy fi ma ñëkke mané mané bu gor yalla bi waxé né ku dé safara nga jëm lu mot setan tal la lu mot setan tal la foofu nag góor yaa ngi laa waxal lu mot a setantal la loolu xam-xam la nit dafay fàtte loolu muy fàtte noonu loolu mooy mbir mi loolu comme ci yàlla lañ jóge woon nag maanaam wàcc ci benn dem dem def benn voyage ndax boo ne ci yàlla laa jóge noo fa nekke woon loolu kër yàlla nga koy xamee nit day dem ba fàttaliku nim mu nekk woon ci yalla mané ko ak ci si yalla yi mam liggéeyee kurus gi nim ko wara a liggéeyee dalay yebbu ba nga fàttaliku ni nga nekk won ci yalla comment tu vivais quand tu étais avec Dieu dang koy fàttaliku gis nga fàttali kooku nga koy fàttali mooy waral nga xam fi nga nekk tey mooy tax itam fi ngay dem ëllëg nga xam ko mooy sa ñetti seede yooyu noonu mooy ñetti seede yi nga xam ne moo nekk ci kuruusu Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru mooy ñetti seede yooyu noonu dañ ko war a seede waaye kon pour delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala ndax am na fu ñu nekkoon il faut ñu def benn voyage ma ne kii nekk Espagne pour bu ñëwaat ndaayaan gi ngi dëkkoon lu muy def da jël avion wàcciwaat fii waaye képp ku bëgg a delluwaat ci yàlla itam Faut mu def un voyage Faut mu def benn voyage Mais voyage boobu ban xeetu voyage la ban moyen de transport lay war Auto lay doon avion <laughs> ku bëgg a delluwaat ci il faut il faut c'est un voyage hein ndax yalla dafa am fu mu nekk nag kon boo bëggee delluwaat ci yalla faw faw faw faw nga def un voyage mais voyage googu c'est un voyage spirituel faw nga def benn pèlerinage pour nga aji ji ci kaaba gi faw nga delluwaat vers la maison de la lumière Pour que ci maison vers la maison de la lumière mais si on en voyage nag saaratan Ce nga xam ne daw li sans énergie on ne peut pas faire un voyage Ouais, quiconque qui veut faire un voyage le voyage spirituel par énergie lañ là. énergie là c'est bon. énergie bon moo gën riche bu kérosène gi nga xamné moy dawal avion gi énergie go xamné mo moo riche pétrole bi nga xamné fa lañuy jëlé manam essence gi saaratan nga xamné dérivé lam dérivéem la gasoil nga xamné gis nga boko dougalé ci benn matière manam mom day mëna rouler mo am un conducteur te volant bi yóbbu client yi ba fi ñi nga xamné fofu lañ bëgg donc sans essence sans énergie il y a aucun moyen de transport qui peut se déplacer kon pour ñu delluwaat ci yalla borom bi subhanahu wa taala dafa soxla énergie dañu soxla énergie loolu tax dafa dafa yéeme dégg Cheikh Moussa mo yombul gu bax barke la rëbb allahu loo képp ku dégg Cheikh Moussa santal te nga xam ne am na loo liggéeyoon démb sa énergie googu noonu nag maanaam mu ngi ci képp koo xam ne am nga bopp ci kaw tànk ci suuf yàlla dala ko mooñaaleel ana lan mooy taal énergie googu noonu ana lan moo koy taal dañoo bokk ci jaam yi wax ne benn baat rek la moo ci gën a gaaw pour mu taal ko mooy baatub laa ilaaha illallah baatub laa mooy énergie bi gën a moo moo mooy baat bi gën a taal baat bi gën a gaaw ngir taal maam énergie googu noonu pour nga mun a décoller mun a def un voyage spirituel vers cette enceinte scellée de Dieu vers cette maison de la lumière maanaam c'est le vocable la ilaha illallah qui peut qui peut te permettre de t'élever de faire ce voyage waaye bi moo ko waxee nii rek est-ce que da nga koy dégg rek nga non attends man comme wax nañ ne boo téyee la laa ilaha illallah mun nga def voyage bi dem ci yàlla xam nga loolu lu muy doon misaal gi ma la wax mooy moo mooy mooy ki ki ki ki ki ki nga xam ne dañ ko wax ne ah boo amee essance rek mu maanaam oto bi dina dem mais mais bu fekkee da nga dugal essence kese ci oto bi est que dina tax oto bi dem ah, ah. kon baatub laay ilaaha illallaah faw mu am koo xam ne mooy nekk conducteur googu noonu ngir mu yóbbu la foofu noonu essance gi baax na waaye il faut mu am un conducteur loolu mooy Cheikh al Mourabbi Siraj al-Munir, moi ton guide, celui qui, qui va te guider. Quand la yàlla wax ci al alxuraan ne yaa ayu al-lazina amanu itaqwallaha wabta ilayhi al wasilatu fa fi sabilillahi laalahum tuflihun e eh, yo mi teragal. te ragal demal nga wuti un moyen qui va te rapprocher de ton Seigneur va chercher un moyen qui va te permettre de faire ce voyage spirituel qui va t'amener vers, vers ton Seigneur. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas, ton physique, mais ce qui l'intéresse, c'est de faire décoller madame qui nga mu ne way xam naa xam naa foofu noonu xam naa béréb man de dama fàtte man aji fàtte laa dama fàtte sama borom te man ku gëm laa waaye man ku ragal laa gëm naa yàlla gëm naa ne ci moom laa bàyyeekoon man ragal naa ko itam parce que xam naa ne moom moom mooy mooy duma waaye dama bëgg koo xam ne mun na ma dimbale mu gunge ma ngir ma delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala C'est bi comme misal gi mo la joxone legui mom kon day ki nga qui va te permettre de retourner vers le Seigneur mu ne la defal ni defal ni defal ni mam li nga nag tax nga mëna charger wu am énergie mu ne del waxale li muy tu la ilaha illallah sa borom di wax ne la ilaha illa kalami mu c'est ma parole la ilaha illa huwa mom ana huwa man may la ilaha illa a ilaha mooy man la ilaha illallah miftahul jannatu la ilaha illa c'est la clé du paradis la ilaha illa kalimatul haq la ilaha illa c'est une parole de vérité mu batou deug dëgg la waaye arjana la sa mbokk loolu moo tax keroog bi nga gisee la git muy témoin googu noonu nga xam ne moo lay yóbbu loolu moo tax Cheikh saa foofee noonu dafa gindi ñu bëri wala boog dafa jaj waa jamono ci ne nga xam ne noonu lañ doon jëlee njébal ndax da ngay gis koo xam ne maanaam c'est un du sa alal du sa taar du sa dara moo ko intéressé Ce qui l'intéresse, c'est tout simplement t'accompagner pour que tu puisses retourner vers ton Seigneur. ce moo ko intéressé loolu déggal aaya gi aslamtu nafsi lillahi li rabbil alamin bëgg naa nga mon compagnon ngir nga yobuma ci borom bi subhanahu wa taala moy ni bay moo doon waxe mané pays bi le le guide spirituel il est un moyen qui te permet d'accéder à ton Seigneur Dans votre fa accéder muy tu vas être dans la plénitude dans la joie et dans la paix dans la tranquillité c'est cela seulement que ton guide veut il veut que tout le monde réussisse lol la bëgg dafa gis ne tiyaande difficulté dafa bëgg nga delewaat fi nga dëkkoon xuntu gu sell googu gu mat googu loolu rek mooy waree fam leneen lu ca tegu mbiru kaccoor kese la te loolu nag moo fees jamono fi ñu tollu nii daraja yi la si laa ilaaha illa huwa loolu moo tax énergie googu noonu laa wax ne nag pour mu takk baatub laa ilaaha moo koy taal yaa ngi dégg nga tàmbalee di wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah waa mi ngay commencé di wax laa ilaha illallah yaa ngay yëg benn benn xaal benn xaal benn xaal nga koy yëg sa biir ba benn xaal boo diisoon nga commencé diis googu commencé dañ ci yow boo reyoon rey googu commencé dañ ci yow boo siisoon siis googu commencé dañ ci yow boo soxoroon soxor googu commencé dañ ci yow kon li nga xam ne moo jàng-jàng yi nga xam ne moo la téyewoon suuf yépp dañuy commencé dagg jàng-jàng yooyu bu commencé dagg nag décollé day commencé am bu méngee oto bi mu ngi commencé dox nag tu commences maintenant à voyager oto gi mu commencé daw mu ngi mu ngi commencé mu ngi commencé daw <laughs> nga commencé nag traverser pays yi borom yi subhanahu wa ta'ala nga commencé gis gis gu leer daan ngay gis de walla boog balaa sax gis di teew nee na pay cër gi njëkk a ubbeeku ci yow dégg la dégg dégg dégg daan ngay dégg de waaye énergie googu bu commencé takk maam sa dégg bi dafay ubbeeku da ngay commencé dégg fu dégg ba dégg sax waa malakoot toog di dégg waa arjana toog di dégg waa safara amul sig barke leerub allahu waaw gis nga gis nga cër gi bu ubbee ko ku sikar cër gi mooy njëkk ubbee ko gis nga gis bu cër googu ubbee ko bu cër googu ubbee ko xakkasaa dafa am cër gi nga xam ne moo ci tegu maanaam ni mu bindoo la loo tax loo maanaam biir amoon nga gis de waaye seen day gën a leer loo gis maanaam gisoo maam day gën a leer suñuy daanaa wax ne fu ko xaari doon jar ko am. abonné seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi nga mën a abonné wu. ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque